salaamaaleykum suñu mbokk internet Senemedia TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox kenn ku nekk seen wàccuwaay euh, tey ñu daal di dalal ki nga xam ni moo di Mouhamadou Bachir euh, borom daara ji euh, mu nekk nit koo xamante ni ku ko xamul dégg nga ko jëm jaa ngi nii mu nekk foofu ci duwaanu Saloum waaye tamit fii ci duwaanu Dakar chaque alxames ak chaque aljuma dafiy ñëw rek ci fi nga xam ni moo di pharmacie Chifa bu Parcelles Assainies unité 12 tey nag la ñu nar a waxtaanee bari na xanaa rek ma bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet bi Serigne Mohamed nuyu naa la. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk internet ñu leen nuyu de leen ziar ma la seen xarit seen mbokk Mohamed Bachir borom daara ji ñu leen nuyu di leen baal ak si weeru koor bi te di leen baal di ñaan yàlla yàlla nañ ko war ay ati at bi jaay rasulullah sallallahu alayhi allahuma amin kilifa gi yal na yàlla nangu ñaan euh, Serigne Mouhamed euh, dañuy faral di waxtaanee li nga xam ne moo di asraar ñu bëri euh, dañuy wax asraar asraar te xamuñu lan mooy asraar est-ce que tey jii mun nga ñu décortiquer wax ñu lan mooy asraar mu mën a leer ci suñuy bopp. jërëjëf soxna si laaj bi maa ngi ci am mbégte ak kontaante di sawar tamit si tontu ko ndax asraar jamono jii ñuy wax jamono ji nit ñi dañoo bëgg soofantal asraar xaw ma dañoo xamul lan mooy lasraar. xaqiqatan lasaraar mooy lu nëbbu léegi da gis koo xam ne day jug jàngul lasaraar dajale ay secret nekk ci youtube bi di ko foto di ko envoyé naan lii mooy lasaraar lasaraar mooy lu nëbbu kon lu ñu nëbbul nekkatu lasaraar moo tax jeune sénégalais yi maa leen si bàyyiloo xel turu yàlla yu nit ñi di joxe si internet bi naan tur bi ku ko zikka da am xaalis tur bi ku ko widda da ngay am dara tur day tëjaate turu yàlla bu wér soo ko bëggee dangay dem nga tarbiyu wala nga xool sëriñ boo xam ne jege na la nga wóolu ko nga dem jox ko sa as tuuti wala nga ñuqi wala ñaq loolu gaa dina ñu ñuqi wala ñaq mu jox la tur yàlla tur yàlla boobu soo ko wirdaa yàlla mën naa faj say aajo waaye imagineel benn waay boo xam ne xamoo fu mu jugee dugg si internet bi yëkkati benn tur ne lii soo ko wirdaa da nga am dara nga widd ko dangay ngay tëju te mag ñi daan nañ wax ñu ne xaatim bu damm ku ko sangoo da nga tëju ñaar fukki at wala lu ko ëpp kon lasra haqiqatan moy lo xamne du lu la ñun suñu wajur ñu koy ñaanal yalla gudd fan ba ñu doon jangal lasrar suñu wajur bu jigen su duggé ci nek bi daan tejj leen téré yi te xol suñu wajur bu jigen daan tejj leen téré yi ñu tejj téré bu mu génn mu soog continuer bi kon lasra lo xam lu la képp da nga tok ci internet bi gis sëriñ génnee khatim né khatim bi khatim bu bax la khatim bu dox ci walu nob khatim bu dox ci walu nangam nangam balen bu leen laal ku ko sangoo nga ngaa tëju rawatina zeni am na benn waay bu ñu wax xaw nan bàmma nan turu xawma ma turu soxo bi du te gis na tur yooyu dafa am lu muy ànd ak te tur yooyu noonu a chaque fois tur bu ne am na lu muy ànd tur bu ne am na xawaatim am na ay rawaanam loolu nag soo ko jàngul doo ko xam kon soo na si xaqiiqatan asaar mooy lu nëbbu kon képp ku toog si internet gis nit ñëw jël ay xawaatim wala ay tur ne leen lii suñu ko widdaat yàlla dana leen may nangam nangam baleen ko soo leen bëggee jëriñu ba leen ko ngeen dem xooli sëriñ bu leen jege wala sëriñ bu leen wóolu mën nag jamono ji sax damay rus sama benn waaye bu nekk Europe moom wax ne ma sëñ Mahammed Bachir te ngeen def vidéo ndax naxekat yi bëri na wallaahi wal quran ndax jamono ji sama maam daan na wax mu ne xam la boo xam ne xam-xam la sarax la boo xam ne ëllëgee wuude ñuy yi sax dañuy daw utili ko pour def ko ndax nit ñëpp dañ koy soxla ndax jamono ji am soxla dem si sëriñ bu am la saar xam lasraar mu ñaanal yàlla sa soxla fa faju yombatul jamono ji jamono ji naxekat yi fi bari am na benn client bu ñu ma boole bu mu ñëwee dana man dama sonn dem naa fu ne léegi dañuy essayé xool bañ ñu essayé fay lay xam ne su yàlla defal ñu ndam képp ko xam ne liggéey lañ ko yàlla dinañu defal ndam incha allahu rabbi ndax dañ kaa jàng tar bi suñu waajur bu mu gërëm ñu kon jeune sénégalais yi na ngeen bàyyi di jël turu yàlla yu nekk si internet bi di ko utiliser wallahi da leen tëj képp koo xam ne bëgg nga am turu yàlla bu wér wooñu ñi laaj si ndigal ñu jox la tur yàlla tur boo xam ne soo ko widdaa incha allah rabbi balaa ñaari semaine balaa un mois da ci gis résultat bu leer nañ si kàttanu yàlla waaye ngeen bàyyi di jël tur yàlla yu nekk si internet yi képp ku toog télé ni leen tur yàlla bi ko ko zikaree da nga am dara wallahi wal quran day wax ndax su si sonnoon joxe si xaalis du ko joxee noonu kon tur yàlla dëgg-dëgg dañ koy jënd wala nga ñaq wala ñoqi kon ku ñaq koo xam ne yow ñaqloo ko ñuqiloo ko mu yëkkati yàlla jox la kon yàqete loo war kaa xoolaat soxna si la sa xaqiqatan mooy lu nëbbu kon nekkul loo xam ne dañ gaaw di feeñal di ko fësal lépp loo xam ne dañ gaa fësal nekkatu lasaar waaw mu nekk loo xamante ni am na solo lool jeune jeunes yi ñu ku nekk war cee mën a bàyyi xel euh, waaye tamit euh, bu weesoo loolu euh, tey jii bëgg nañ xam lan mooy fay wax ndax mun na mun nga nekk ci jamono joo xamante ni wala nga nekk si ay problème yoo xamante ni wax ji day bari lool lool lool ci sa côté te da ngay bëgg lu fay wax ji comme nuñ koy faral di gis naxekat yi bëri nañ waaye Serigne Mouhamadou Bachir bëgg nañ xam wala sax nga ñëwaat bu baax a baax ci boobu leen bi jërëjëf jërëjëf loolu tamit dinañ ci leeral xam nga euh, bëri na ndeysaan koo xam ne day nekk ak goroom goroom sonal ko goroom sonal ko du ko bëgg sonal ko lool ba jaral ko sax mu dem si nit di ko liggéey léegi xale bu jigéen bi nag ndeysaan su demee si yeneen sëriñ si du mu leen si tuddee sax sëriñ xam lu ñu koy wax kaa ñu boole leen seen diggante nit ku la bañ pour nga boole seen diggante day jafe loolu mën ngay utiliser fay wax fay wax yi mooy da ngay téye làmmiñu goro bi ba du waxati si moom lu ñaaw. nit ki nag su wax du si yow lu ñaaw pour nga boole day jo day yomb même day day li fay wax mën nga kaa liggéey si nit ku nekk si entreprise nit ku nekk si entreprise chef bi wala ñu ko ñu ko wër sonal ko si ay wax yu ñaaw wax yu sew kooku tey su liggéeyee fay wax bi tey chef bi mooy da ngaa téye làmmiñu chef bi ak làmmiñu encadrement bu ko wër ba nga xam ne du ñu waxati si moom lu ñaaw loolu lañ wax xaqiiq dañ fay wax léegi soo liggéeyee loolu ba pare nga xool yan sarax nga koy saraxal soo ko xoolee su ko defee nag nga soo kaa liggéeyal boole luy boole ñun ñun dèjà ñun suñu amee client lu ñu njëkk a def mooy man parfois ma amee client client woo ma ma bëgg nga defal ma seet damaa wax ko da ngaa yàkkamti client normalement su ñuy seew su la waxee soxlaam da la war a bàyyi ak soxlaam ñun ñoo ko war a seetal soo ko seetalee dafa am dangay jël buntu juróom ak buntu juróom-ñetteel loolu nag xam naa si sëriñ si xam naa xamuñ ko dafa am lu ñuy wax naar yu am lu wax turaab yu hawa yu maa yu siram la léegi buntu yooyu ngay xool nga def saglan soo ko defee benn sac sakl boobu nga xol ba xam lan ban la ban ban la japp su jappé nar yu danaa la wa li kii kat so liggé mom mën nga gis résultat nga dugg ci nga ne ko ah soxna suma la ñaan lé kat di nga am résultat waye da nga def sarax bi da nga def sarax bi da nga def sarax bi mun client dina ñew ci man ma ñaar mo xol ko gisuma mun gisuma ne suma ko ñaanalee dina am résultat dama ko est-ce doon fenen wala nga bay ba ay jamono waye nak solution mu naa am sarax mo moy une solution sarax mooy une solution lé da nga imaginer ko xamné dafa nek ak gorom gorom sonal ko mu ñëw si yow nga yokk ko problème naan ko waaw da ngay def jubale ndax jubale nangam nangam nangam jubale baax na trop waaye dèjà foo da ngay utiliser fay wax fay wax bi nag ñu ngi koy defee si bopp bëy bëy ni mu bëree wax fay wax boobu noonu soo ko defee si foofu yéen nga sànni su yéen yéen nga sànni ko si géej yéen nga def ko si intersection incha Allah rabbi képp koo xam ne dana wax si yow lu ñaaw képp koo xam ne dana dana xoolee bët bu ñaaw. danaan patt pataaral du la talati boppam lay tal incha allahu rabbi fay wax boobu mu yàgg nañ kaa testé am na benn waay boo xam ne ndeysaan suñ mbokk européen yi suñ nekk ñu nekk euh, fa ñoo xam ne seen chef yi tubaab yi dañoo bañ dañoo bañ jullit am na yenn tubaab yoo xam ne bëgguñ supporter jullit te waa ji fay laa xam ne su ko dafa jullite woon lool si loolu lañ ko indilee problème waaye gis bañ ko defee bañ ko defaree lii bañ ko defaree lii waa ji fa lañ ko jëlee changé ko feneen bëri nañ ñoo xam ne dañ koy loolu moom wax dëgg yàlla moom secret bu ñu wóolu ndax yàgg nañ kaa liggéey loolu mooy fay wax soxna si. Euh, donc mu nek lo xamanteni amna solo mbok internet yi malen di fatali rek ñu ngi fi ci duwaanu Parcelles Assainies unité 12 amal waxtaan ak ki nga xamni modi Serigne Mouhamadou Bachir borom daara ji mu nek nit ko xamanteni ku ko xamul dat nga koy deg nek foofu ci douane salum waye di fatali rek fi ci douane Dakar chaque alxames ak chaque da fi ñew rek ci fi nga xamni modi pharmacie shifa euh, da di faré fi nga xamni modi moo di unité 12 ci li ñuy waxtane ba tey ngeen li nga xamni ni modi fay wax bi nek na lo xamanteni amna solo ndax sax jëkkër des fois da ngay nek ak mom muy wax ciow li bari mhm. donc fay wax bobu nek na lo xamanteni amna solo buñu ñu juk di def ay ay affaire da ngay dem ci ki nga xamni mo meun dem ci ki nga xamni ni bu la di nga gis waye ñu ci bëri dañuy naxé ba tay rek eh, benen eh, problème mu nekk problème mu jigéen ñu bari mu di borom kër tey ji jigéen ñi gis nga ñoo xamante ni à chaque fois dañuy bëgg a sëy mais amaana di nga gis koo xamante ni dafay am ñaar fukki at yu teg wala ñeen fukki at te du gis borom kër euh, sëriñ euh, Mouhamadou Bachir ma bëgg a xam tey ji borom kër ku ko bëgg mu gaaw ci jigéen lan nga war a def bu la seetsee ndax xam naa ni moom bu la seetsee aajom faju alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah loolu moom ñu si sant yàlla di gërëm tamit suñu di ñaan yàlla yàlla guddal fanam ndax turu yàlla yu nit ñi di uti feneen ak feneen ak feneen feneen fay laa xam ne aussi dafa tar bi bàyyam bàyyam gërëm ko bàyyam ku ko xamul dégg nga ko xalifatul xaaj Mouhamad Niass yàlla na yàlla yokk leeram da doon wax mu ne lasaraar soo ko bëggee da ngay dem xool koo xam ne lasaaram barke na moo taxoon mu jël doomu alaaji Abdul alaaji Ibrahima Niass yóbbu ko si waajooju noonu ñuy wax alaaji Ibrahima Niass tey lu mu taxawal lew na tey mu ngi ko taxawalee si lasaraar te kooku ko jàngal mooy Sëriñ Alaaji Omar Thiam kon suñu waajur dafa tarbi waajuram ba mu jël ay turu yàlla yëpp mu xamoon joxo ko gis na secret bi ngay wax nii mooy wàllu jigéen bu bëgg am jëkkër loolu ñu ngi koy defee si caxat bu law si sidéem sidéem garabu sidéem nga gis benn caxat caxat bu fa law caxat boobu noonu tey soo ko jëlee nga bind li ngay bind jigéen bu ko takk xalaa kulli xaal dina am borom kër si lu gaaw si kàttanu yàlla. am na beneen secret boo xam ne góor gi moo ñu ko jàngal yàlla yàlla gudd fanam du tilim lañ ko tuddee du tilim du tilim. dañ ne boobu noonu nit ki su ko takkee ba mu ko ewee morso bu weex su ko takkee balaa moo tilim dina am ci kër day ànd ak tamit benn fuddan fuddan boo xam ne da ngay jël mbaxane góor wala kap yaa xam nga bind saafara bi nga seggee ko ko mu ñëw ci fuddan bi jigéen gi fuddana ko secret man dama ne woon sax secret boobu noonu jar na nit dem si biir bis taraay pour rek pour pour dimbale jigéen ñi ndax jamono ji njaale bi bari na te li ko waral mooy ñàkk bari ñàkk jëkkër xam nga jigéen gu toll ci sëy amul jëkkër yaa xeeta su amul ngor dëgg dëgg dëgg dëgg mën naa dem def lu ñaaw moo tax dama naa jël secret yooyu noonu dugg si bis bis tataay du ko di ko di ko di ko proposé nit ñi pour ñu jënd ko seen seen seen aajo faju da ngay gis koo xam ne day dem si ñaata sëriñ pour jëkkër rek te du ko am moo tax maa ngi wax ne sant ñas sant si sant mbàkke wala sant bu mën a sant lasaraan dañ koy jàng lasaraan dañ koy jàng dañ koy tarbiyu lasaa dañ koy jàng dañ koy tarbiyu ñemi course teg si gis na secret yooyu jigéen bu ko def si kàttanu buur yàlla yàlla dana nangu yàlla dana ñu nangul te yàgg nañ kaa sax def di gisee si taa gis na lasara fa xamee dafa am solo def am benn sëriñ boo xam ne dafa jël taalibeem kon lasara nga xam ne kon lasara kon soo liggéeylu sa sëriñ ba sëriñ ba sa sëriñ gërëm la kon lasara bi da ngay dajale ay secret yu bari rek waaye amul njëriñ lasara ngërmaane la nit a ngi am benn tur yàlla benn tur yàlla bi yàlla def si ngërmaane mu am si lu ne nité ngi am fukki turu yalla ak juróom fekk amul ngeurmané du am jëriñ motax képp ku leen gis mu nekk ci internet bi di leen jox ay tur xoolaat leen ko bu baax su leen ko utiliser da ngeen am problème wallahi wal quran waji ji sëriñam jox ko benn tur yalla waji di wedde tur yalla bi di wedde sëriñ bi ndok japp ko mu dem ñaalok ben jaburu jambur waji jël jaase dag loxo bi dag loxo sëriñ bi mom dëggal lako sëriñ bi nag sëriñ bi jaxlé waji dem si jakka ja annoncé né da ngeen gis imam bo xam loxo mi dafa dag imam bi jaxlé ni mu jël loxo bi daw dem si kër taalibe bi nako man de wax dëgg yalla am damaa def ndok ndok te xam fa la jëm rek sama xel mom indi fi sew waye talib bi da kaa liggéeyaloon gërëm ko nak talib bi jappu julli tur yalla bi xam nañ ko sin sin gor góor gi jàng lañ ko def tur yalla bi ñaan yalla loxo bi tapat tur yalla amul lu mënul gis na moone ne astajib lakum ñaan leen ma ma may leen te addu'a u silaahul mu'min ñaan mooy ngandaale julit mu da kep ku tok nan ñaan yalla nang nan nangam nangam day chaxan nit ki da nga wara def ñaan lu sa bop deg na ci serigne ki mu ne ko do tak do sangu do sóoru ñi teel tak ñi sang ñi teel sul yalla inshallah musal kon jigen bu bëgg am jëkkër inshallah allah bi soo ñu suñu numéro si kàttanu yàlla ñu jox la leen jox wallahi wal quran ñun daara lañ yor alquran daara lañ yor internat bu mag lañ yor fële sa Saloum di ko jàngale kon ñun rus nañu wax loo xam ne suñu parents d'élèves suñu ko déggee dañuy weddi te ñëpp a xam si Lassar ndax si lañ juddu si lañ màgg ba toll lañ màgg nii secret boobu bépp jigéen bu bëgg am jëkkër incha allah rabbi soo ñu contacté incha allah rabbi suñu ko defee si kàttanu yàlla da nga gis sa gétation lu gaaw incha allah xam naa ni numéro bi sax bu si kanamee eh, dinañ ko joxe waaye tamit di ngeen ko am li ci li nga xam ne moo di seen suufu écran eh, ci noonu rek eh, leneen sax ci ay jafe-jafe ndaw ñi laay wax hmm. ndax tey jii ku ne xam na ni xëy amul ci réew mi ndaw ñi ñu bëri bëgg nañ tukki mais da ngay gis ñoo xamante ni mun nañ nekk ci juróomi at bëgg tukki di liggéenti papier papier te leen mu mel ni rek macha allah Serigne Mouhamadou Bachir yéen yàlla am na lum leen ci may hmm. tey jooju boobu ko bëgg bu ñëwee ci yéen nu muy demee alhamdulilah papier boobu ñu ci sant yàlla bu baax yàlla defal ñu si tawfeex gis na càngat yi nga gis ni bii bii lañ tuddee watamoo bii lañ tuddee càngatu ubbeeku bii lañ tuddee càngatu musluwaay ak yeneen ak yeneen yëpp ñu ngi fi xam nga papier ni dina ko lijjanti fekk dafa am gàllankoor yu nekk si moom ñun dèjà soo ñëwee si ñun balaa ñi laa balaa ñi laa jox ñaanu papier ñaanu papier ñu ngi ko def si dayu gilim neefere gëlëm nañ koy defee bind liñ bind mu ànd ak neefere gëlëm lu am lu am solo la si papier ak papier bu waaye mën a lijjanti waaye balaa ñu laa jox loolu dangay jox loo xam ne day dindi ay gàllankoor xam nga lu nekk sa yaram xanaa xamoo làmmiñ ak bët baaxul yéen du silenciam nee na gëlëm dugg nañ ko si kéew di mooy si cin fekk deem jotagul te xanaa xamoo cat day jàpp sax day jàpp sax euh, euh, néew ñëw bu def lu baax def lu baax def lu baax ba dara ñëpp waa koñ bi yëpp naan kii dafa baax kii dafa baax kii dafa baax avant ñu kaa suul tànk bi dafa dem. moo dañ naan yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam. jeex naa yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam imagine yow garab bu rafet meññeen bi mu am meññeen bu baax fële la am du sukkuru naan garab gi da rafet na del xool day yàgg yàgg rek da ngay gis garab bi de semm nit nag noonu la gis ñoo xam ne nii koo xam ne yow yàq moo ko composé ak deret ak yàpp kon kooku tey su amul lu ko aar yàqita mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi lool boppam kayit yooyu nag soo ñëwee tey su ñun loolu leen njëkk defal mooy dañ lay jox loo xam day dindi si yow ay gàllankoor su dindi si gàllankoor pare ñu soog laa defal cëngatu kayit bi incha allah rabbi am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla am ñaanal lañ leen tukki nañ bëri na ñoo xam ne ñu ngi foofu noonu am na koo xam ne sax ndeysaan mu ngi Europe benn secret boo xam ne Europe ku nekk Europe bëgg liggéey amoo liggéey mu ngi ànd ak karawu tubaab karawu fas karawu mbaam xaatim boobu noonu képp ku nekk Europe même day ànd sa karawu képp ku nekk Europe bëgg tubaab bëgg la tubaab yi bëgguñ la nga bëgg tubaab yi sopp la wallahi wal quran soo ko takkee ku la tubaab bu la gis lay sopp donc góor gi jàngal nañ ko xaatim la boo xam ne soo ko defee yow mi nekk Europe bëgg ubbeeku soo ko defee ndax yàgg nañ kaa defal ay nit wax dëgg yàlla am ñu ku nekk Europe bëgg ubbeeku soo ko defee si kàttanu yàlla danga am liggéey te da nga ubbeeku te yàlla dina la yombal si yow kayit incha allah rabbi kon kayit képp koo bëgg soo ñu wooye incha allah bi xam nañ yoon bi ngay jaare yow ba ba ba ba defal la ko incha allah rabbi Euh, mbokk internet yu seen média di leen fàttali rek tey ñu ngi fii ci duwaanu Parcelles Assainies ci euh, ki nga xam ni moo di Serigne Mohamed euh, Bachir borom daara ji nekk foofu ci duwaanu Saloum ku ko xam rek dégg nga ko macha allah fi nga xam ne rek moo di diwaanu Dakar képp koo xamante ni bëgg nga ko gis mën nga ñëw fii alxames ak àjjuma fii ci Parcelles Assainies ci li nga xam ni mooy côté pharmacie Chifa Parcelles Assainies unité 12 la su ko defee rek nga daal koy gis li nga xam ni rek rek moo nekk saafara mu daat la ciy jàppale bu baax a baax euh, olof a ko wax euh, kii di jéem ñi ko mën ak ñi koy ñi di jéem du benn euh, tey ji njabar nekk na loo xamante ni dafay jàpp nit yu bari nit yi njabar googu sax su la jàppee dina am tamit gàllankoor goo xamante ni dina ko andi sa yaram mu mel ni yéen tamit yàlla macha allah may na leen xam-xam goo xamante ni njabar googu ku ko jàpp ku mu jàpp du moins bu ñëwee ci yéen ngeen faj aajo njabar baaxul njabar baaxul gis même jour dañu gis dóor boo xam dina dem ba ci kanam euh, mbirum dëgër fekk sëf yu ñu ko daan sëf moo def njeexantal ci moom nit ki saa bu la sëfee ci suuf te utoo li koy toj yàgg yàgg yàgg day def njeexantal moo tax man su ma amee yenn mbokk yi ñu mën kii dama laan ne bu leen def nawetaan wala balaa ngeen def nawetaan fexe leen ba na ngeen am lu leen aar te képp kuñ sëf xalaa kulli xaal nooy gën a nekkee mag muy gën a def njeexantal ci yow waaye léegi soko soo est-ce dina bax te xana xamoo njabar dina fan njabar dina la japp xam nga suñu leen jabalee da ngay febar rek da ngay febar di febar dana dem da gàttal fan gis na saafara bi ak saafara bi ke bu ko sango njabar bu muna nek ci yow day dañ am na secret bo xam nak nag góor gi jox nañ ko bo xam ne day même corte man duma jël sama secret di ko di ko wax internet bi dedet fa lillahi hamdu wa shukru ñu na sant yàlla ndax ñun duñ gi si bo pare mu jox ñu ay secret ñu wax internet déedéet duñ ko def képp koo xam ne kort la raja jàpp kort nga xam ne moo bon mu lay semal sa di miti mu jeex saafara bu képp ko bindal dafa la muy ànd ak xottu gerte xottu gerte xaaraan yi insha allah rabbi so ko sangoo si kàttanu day dañ ba jeex kon jabar te njabar si ñi mi def mooy da ngay exemple da nga bëgg liggéey ji nga jékki-jékki rek fuddu tayal seen njabar da ngay gént xaj dàqale jàpp la ngay gént nag mbëkk la ngay gént nga jékki-jékki sa yaram di tayal loolu yow mi koy def jëlal jugal gaaw nga dem si sëriñ boo xam ne mën na sëriñ bul dem si ñi nga xam ne dañu photocopier bëri na sëriñ euh, sëriñ photocopier sëriñ photocopier bëri na fii dem si benn waaye mu photocopier la rek nga ñëw toog naan sëriñ bëri na fii dangay dem si sëriñ bu jàng la saa mën ko xam ko ñun tey suñu waajur ñun tey si lasaar lañu ñun tey lasaar suñu waajur am na si lu ne fay laam du sukkur amul benn entreprise daara ja daara mag la ñu bëri ñi fa nekk kenn te ñu ngi leen dundee si lasaar kon dangay dem si koo xam ne xam nga ne kii jàng na am na koo xam ne ñu nekk doomu sëriñ sax te duñ jàng mun xam naa si ñu bari ñoo xam ne doo muslim ne te jànguñ kon da ngay xool koo xam ne doy na la nga dem si moom mu defal la ay saafara incha allah soo ñëwee si pharmacie Chifa da nga fekk suñu rakk ñoo Aliou Thiam moom dina la jox saafara si kàttanu yàlla wala wala fekkee ñëwoo fi pharmacie ay alxamis ndax ñun dañoo yor daara alxuraan lu ko déggee samedi ba mercredi dañuy nekk si daara ji soo ñëwee fële sa saalum dañu fa fekk incha allah ñu dugalee si ñaq gi su ñu dugalee si ñaq gi nga sangoo yàlla dina lépp incha allah rabbi mu nekk loo xamante ni am na solo lool waaye tamit bu weesoo li nga xam ne moo di njabar euh, tey jii gis nañ euh, xale jigéen ñi nu leen neex la ñuy solo mm-hmm. gis nañ sol colu gu bon gi nga xam ne dañ koy nemmeeku ñu ci bari nag ay ngelaw seytaan nekk euh, yu ni mel di leen dugg mm-hmm. loolu tamit macha allah am ngeen ci xam-xam bu yaatu. waaw loolu dañ lay jox cuuraay dafa am cuuraay boo xam ne cuuraayu seytaan lañ koy lañ koy wax cuuraay baa ngi fii nii nga sóoroo ko. loolu nag dama koy wax dama koy war faral di wax euh, euh, euh, dama koy faral di wax mbokk xale ci waay baa dama koy faral di wax suñ mbokk jigéen ñi mooy leen jigéen lépp am la sëf tenxam yi ak kanam gi maa dal wajhi wal kaffayni kon sa say say say cër soo ko bàyyee jinne mën na laa gis sopp la wala rab wala leneen gis la sopp la dugg ci yow léegi nag dèjà loolu dugg dugg si yow noonu dina la yàqal lu bari mën na laa xañ jëkkër mën na laa xañ doom da jigéen koo xam day sëy sëy lu yàgg du am doom loolu alhamdulilah loolu sëñ bi góor gi am nañ si ñu bari ñoo xam ne ñaan na leen si buñ tuddee ay doom ci jigéen gu sëy bëgg am doom te amoo doom loolu incha allah rabbi képp ku fi ñëw si kàttanu yàlla li ñu lay jox da nga koy naan yaa sa borom kër loolu mën na laa xañ nga am doom mooy ngelaw seytaane mën na laa xañ nga am borom kër. mën na laa toog ngay jékki-jékki di énervé wu te kenn du la def dara nga jékki-jékki énervé te fekk kenn defuloo dara moo tax ñu naan diw sàngam day soppeeku jikkoom tey am lu nekk si moom loo xam ne su ko fajul du baax loo tey soo ñëwee tey si pharmacie Chifa dañ lay jox si garabu saafara joxaale cuuraay bi cuuraay bi dañ koy cuuraayoo incha allah bi saa boo ko cuuraayoo rek saye si kàttanu yàlla dina dañ ba jeex tàkk mooy dénk foo tamit jigéen ñi nañ sol lu jot suñu sollu jot di muur seen bopp yi si kàttanu yàlla yàlla di leen musal si loolu am na nag ñoo xam ne sax ay àndandoo taywaan yi seen maam la exemple dañuy sollu jot di muuru di jàng alxuraan fekk seen maam yi ñoo ko amoon mu topp leen yooyu tamit soo ñëwee dañ koy dindi am na benn temps si ginnaaw ndeysaan benn waaye boo xam ñoo bokk fu ñu dëkk ndeysaan doomam ji yóbbu na ko si sëriñ bu ne yóbbu na ko sëriñ ne mu ñëw si góor gi waxu ko barki démb ma doon ànd ak góor gi waa ji waa ji euh, dab ñu nuyu ñu présenté góor gi doom ji ne ko doom jaa nekk nii léegi nag day def candidat libre après déwén incha allah rabbi te wallaahi wal xuraan boobu ni mu meloon loolu góor gi de loolu da koy faj immédiatement nu koy français di waxee dëgg ñoom mu defal ay campo yi ngay sangu di naan sangu di naan rab ngelaw seytaane ko jigéen bu seytaane jàpp lépp incha allah rabbi dana dana koy dindi ba mu si kàttanu yàlla.